waaw donc maa ngi tudd Mamadou Ciss nekk euh, président commission d' organisation Pastef maintenant tamit nekk euh, membre secrétariat national à l' organisation. ñu ñëwoon tey doon def euh, acte citoyen ndax kii di acte citoyen di defar parce que tey Martin Luther King daanaka suñuy doom suñuy rak suñuy jarbaat ñoo fi jàngee donc am na ci état boo xamante ni nekkoon na fa boo fi ñëwoon avant une semaine avant boo gisee lii sa xol jeex. bon sant yàlla nag ba nga xamante ni ñun Medina lañ dëkk ay doomu gox bi lañ gis nañ ni am na école boo xamante mu ngi suñu biir gox jàpp nañ ni war nañ am luñ ci def rien que pour suñuy doom ak suñuy rak bu ñu ñëwee di jàng si ñu xam kat école bi ñuy mu ngi nekk si condition yu normal donc loolu wax dëgg yàlla dañ koy dañ koy rafetlu moo ñu sol suñu dàll ànd ak waa Pastef ñun waa Pastef yëpp ñëw def ak citoyen bi nga xamante ni le président de la république moom moo ko wootee à ce que tey journée bi ñu jagleel ko école yi. tombeeg octobre te ku wax octobre. wax ubbi école ku wax octobre sa xel dina dem ci jàngalekat sa xel dina dem ci élèves yi ak étudiants yi ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi nekk même bu dul ci école sax ba ci daara yi sa xel dina ci dem moo taxoon mu nekkoon weer wii édition bii nga xam ne moom la ñuy def édition seetal suñu réew nañ ko jël jagleel ko école yi école nag buñ leen ko jagleelee mooy maanaam fexe ba euh, investissement ak effort yañ doon def ci set setal yi ci koñ yi euh, ak ci espace public yi ñu jël ko tey andi ko ci école bi buñ ko fi andee dina permettre enseignants yi ñi nga xam ne ñooy jàngale euh, suñu raq yu góor ak yu jigéen yi nekk ci école yi di jàng bu ñu ñëwee bu école tijjee ñu ñëw fekk benn cadre boo xamante ni dina leen mën a yombal ñu mën a jàng euh, def seen liggéey ni mu waree te du ñu am benn gàllankoor ak loraange moo tax tey ñu jublu ci weer bi li nga xam ne moo di moo di école yi nekk ci Sénégal yëpp te gis nañ ni wax dëgg yàlla initiative bi ñu ngi koy wéyal foo dugg ci Sénégal ci réew mi actuellement nit ñaa ngi dem ci école yi dem ci lycée yi dem ci université yi pour jël en charge préoccupation bi. pour di ko di ko wéyal ndax biñ koy tàmbali moom waxoon na ko nee na le défi personnel le défi ci initiative mi mooy fexe di ko amal saa su nekk donc ñuy sant yàlla bi ñu yàlla dimbalee boobu ba léegi ñu koy wéyal te. na ci nit ñi jóge woon ba tey ñoo ngi ci ba tey euh, loolu dañ ci gërëm askan wi ndax euh, lii président woote euh, pour seen pour ñun ñëpp la waaye askan wi tamit da ci dina ci gis boppam ndax set ak lu jag balaa jëriñ kenn yow mi nga xam ni yaa koy def nekk fañ koy defee yow lay yow lay njëkk jariñ comme ni nga ko waxee Coly tey xew nañ ànd ak président fële ci euh, lycée Demba Diop de Mbour mu nekk lycée boo xamante ni moom fa la jàngee fa la defee cursus am bëri na sax ñoo xamante ni euh, ci gouvernement bi ñoo xamante fa lañ fa lañ jaar bañ demee ministre bi bëri gis nañ leen foofu waaye moom moo yéene ni euh, mois d' octobre soo forcément sa xel day dem ci rentrée des classes sa xel day dem ci jàngalekat yi sa xel day dem ci élèves yi dem ci étudiants yi Euh, mu ne kon comme nag octobre lay tombeel édition bi nañ jël suñu kéem kàttan gañ daan def ci set setal ci mbedd yi ci biti ak place publique yi nañ ko andi ci biir école yi suñ ko indee ci école yi dina permettre euh, bu xale yi école tijjee nan daan ñëw di fekk école boo xamante ni dañ fay fekk ndox classe yi tasaaroo douche yi euh, jaxasoo bu ñu ñëwee dinañ ñëw fekk ci cadre boo xamante ni dina set dina sell pour que ñu mën a xëy def seen def seen def seen ñiy jàngale def seen liggéey ñoom ñi nga xam ni ñooy jàngkat yi ñu mën leen dispenser ay cours yoo xam te ni dinañ ko jël ci anam yu yu yu mucc ayib loolu moo tax tey Médina bëri na école mais école Martin Luther King euh, image bi ñu fi gisoon vraiment euh, seddul woon suñu xol donc ñu nekkoon suñuy effort dinañ ko jël déployer ko ci Martin Luther King pour que Euh, liñ fi gis muy ñaaw loo xamante ni ndox yi ak situation bi fi nekkoon pour ñu dindi ko permettre xale yi ak corps enseignants yi suñu ñëwee école Tické ñu mën a fekk cadre bu set bu sell te rafet loolu nag ñu ngi ko ànd avec la section communale de de de Pastef Médina euh, ñu ànd ci ñëw tey fii nga xam ne ñoom ñi ko doon coordonné piloté mooy la cellule de Centenaire Gibraltar ak euh, toute la sérénité ndax euh, li ñu tax dugg ci politique xam nañ ko lañ ci jot liggéey ba toll ci fii fi ñu jaar xam nañ ko askan wi ñu mu wóolu jox ñu nopp euh, defal ñu lu mu defalul kenn ci Sénégal mooy élection yi jóge fal un opposant au premier tour avec pour cent lim ñu defal ñun xam nañ ko donc la ñu war a defal askan wi war ko defal réew mi xam nañ ko te ci jéego yooyu la ñu nekk incha allah dinañ dem ci élection yi mais la Pastef tàmmoon démb ba xëy sénégalais yi dénk ko loolu la Pastef continuer di wéyal nii ba tey mooy fexe ba askan wi di gis seen bopp ci suñu politique seet jafe-jafe askan wi seet yitte askan wi liñ ci mën a taxawee te mu tolloog suñu kéemta kàttan ñu def ko donc Pastef jugul ci ligne boobu saa a toujours été notre notre notre credo bañ nañ ko ba suñu slogan mooy don de soi pour la patrie mooy jël sa bopp sa alal sa kàttan sa xalaat lépp nga jël ko jébbal ko askan wi jébbal ko réew mi ci loolu lañ nekkoon ci loolu la ñuy continuer di dox te incha allah ci loolu la ñuy demee élection bàyyi sénégalais yi seen affaire ñu tànn te gën nañ ni incha allah liñ leen wan ak fi ñu leen bëgg a jëmee euh, dinañ tànn tànn ko am dina sedd suñu xol.